jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, réew FM mbokk ñu dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi comme ni ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki tey ñu invité Gaoussou comment mi nga xam ne moom moo jiite coalition na moom mooy président jot na moom la invité. day fas yéene waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci wàllum actualité politique euh, Gaoussou Koma réew mi FM maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Abdou Khadre di leen nuyu di nuyu euh, ñëpp ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ngi déglu seen rajo bi. di ñaan yàlla mi nga xam ne dara teewu ko lépp loo xam ne fas yéene nañ ko waxtaane fii yàlla na jural sénégalais njëriñ. Mm-hmm. boo amee nag loo xam ne lu ci dëng la nañu xam ne ne du suñu coobare. jërëjëf euh, Gaoussou Koma euh, bala ñu dugg ci wàllum politique ñu wax ci actualité fan yi ñu génn euh, dafa am benn njombe bu doy waar boo xam ne moo xew ci Tiwaawoon ci hôpital Maam ab lu toll ci fukk ak benn ci ay liir yoo xam ne ñoo faatu ci ak lakk lan moo ci sa xalaat. waaw xanaa di masaw waajuru xale yi ak seeni mbokk yi di masaw bépp jigéen bu nekk Sénégal mm-hmm. di ci am. Euh, naxarlu naxarloo boo xam ne am na fu mu tàmbale waaye fu amul fu mu yem lu tax mooy euh, tey bu ñu demee ba hôpitaux yu doy noonu dem ba ñu ne am na xeetu lakkadu bu doy noonu te kenn intervenirul ça veut dire que ne c'est extrêmement grave lu tax ma ne c'est extrêmement grave mooy euh, toll nañ ci jamono ji nga xam ne le minimum mhm. mooy booy defar hôpital nga def ay détecteur de fumée détecteur de fumée maanaam mbir la boo xam ne appareil bu yomb la cherut. boo ko tegee même bu dee cigarette ngay tox cigarette. bu saxaaru cigarette bi rek laa la wax jógee day sonné ubbale hôpital bi yëpp. bu porte. noo ubbale hôpital bi ba nga xam ne ñëpp dañuy xam ne ne am na lu am na lu xew. donc ça veut dire que ne mesure de sécurité yi nga xam ne ne les minimal bi waroon am élémentaire yi waroon am. au niveau de de l'hôpital de Tivaouane amu fa donc ça veut dire extremement c'est grave léegi le la le problème que je pose mooy est-ce que réew mii toogul ni càmbaraat réew mi du fond au comble xam nga lu tax wax noonu. de fond en comble parce que tey booy xool jóge nañ ci Covid bi yàggul. mais boo xoolee dama lay jox benn cas bu simple rek hôpital principal ay den rek Covid bi li seen personnel bi li ñu daj coono gi ñu daj te xaalis boo xam ne ne xaalis boobu bàyyi woon nañ ko foofu pour ñoom ñu mën a am yenn produit hygiénique yi laa la wax. mënuñu ko woon am pour mënoon am yenn produit de base yi nga xam ne ne moo leen doon permettre même ñiy raxas seen loxo ñu doon am problème yooyu xaalis bi nga xam ne dañ ko génne woon ci budget ci ci ci ci mille milliards yi ñu waxoon pour fay leen. ci liggéey bi ñu doon def noonu xaalis boobu ba léegi ñoom gisuñu ko fayuñu leen mais leneen li gën a garaaw mooy ça veut que ne Sénégal li li gën a am solo ci réew mooy santé ak éducation rawatina santé ñi nga xam ne ñoo ko yor soit dañu xamul lan mooy santé. Sénégal Sénégal soit ñoom seen bopp seen yoon nekkul si nit ñi parce que tamit man ni ma ko mën a comprendre mooy seen yoon nekkul seen yoon nekkul si nit ñu lu tax mooy tey bu ñu feebaree. France la ñuy fa France la ñuy France la ñuy fajoo démb war naa ko sama benn émission gis nga sama loxo bi nii dama dem gis benn médecin hôpital principal mu ne ma loxo bi de bu fekkee ne wowul ba dañ mën nañ ko opérer ndax paneri lay fa la jëm may waxtaan démb bi may dem ci émission bi ak benn ki ma àndaloon ma ne ko bu fekkee dama ko nar a opérer moom damay dem France mu opérer ko foofu. mu ne ma grand lu tax ma ne ko man xalaatuma sama àdduna bés bëñ di ko defaree si fi Sénégal lu mu ne ma lu tax grand ma ne ko parce que le plateau médical bu Sénégal amul Sénégal amuñu plateau médical ba pare c'est coûteux tu tu paies d'argent loolu yëpp lu ko waral mooy bés bu nga xam ne ne ñi nga xam ne ñu ñoo ñu jiitu le président de la république bu feebaree jàng xam sax bu feebaree day dem day jël avion médicalisé dem ministres yi bu ñu feebaree bitim réew la ñuy fajoo euh, directeurs généraux yi bu ñu feebaree euh, fa la ñuy fajoo képp ku yàlla xaw a dimbali tuuti boo boo boo feebaree bitim réew ngay fajoo tu parce que ne ñooñu dinañ jël seen xel ak seen xalaat ak seen coono di ko def di ko di ko def di ko def si. kon yow da jàpp ne euh, kilifa yooyu tànk fajowuñ ci réew mi. Euh, tant que seen doom jàngewut ci réew mi du ñu jox gëdd éducation ak santé. non duñ ko duñu leen ko jox tey duñ leen ko jox suba parce que nekkul priorité ci ñoom tey dama lay wax ne la ku nekk ministre de la santé. nga xam ne ne am nga sa biir ministère ay direction yoo xam ne lan mooy seen role mooy xool ndax hôpitaux yi am na sécurité ou amul sécurité détecteur de fumée détecteur de fumée nga xam ne ne mooy li gën a ñàkk xorom gën a ñàkk fayda gën a jarul dara loolu amu leen ko tu penses que nag kooku dina lijjanti condition infirmiers yi fa nekk condition de travail médecins yi kooku dina lijjanti sécurité ñi fa nekk kooku du ko def. parce que mais loolu est-ce que du directeur hôpital bi aussi comme li nga wax dafa xaw a teeraat. waaw mais xam nga tey directeur hôpital bi dafa am loo xam ne budget fu mu yem. kooku mënul directeur hôpital dañuy wax rek waaye mënul def dara dafa am biir ministère de la santé benn direction boo xam ne liggéeyam. mooy jëm si tout ce qui est génie civil. tout ce qui est bâtiment tout ce qui ñoom dañuy goj dañuy def ay rondo dañ leen di fay ay per diem dañuy def dañuy def dañuy def ñooñu ban liggéey lañ def normalement waroon nañ def seen rapport rawatina pédiatrie yi rawatina chambre yi même couloir yi hôpital. détecteur de fumée mooy li nga xam ne ne balaa ngay tabax hôpital sax moom nga war a njëkk xalaat. mais xam nga euh, Gaoussou Koma euh, président Macky Sall moom mooy euh, mooy ndey mbi léegi mën nañu wax loolu ak ministre de la santé mais ñi nga xamante ni tey ñooy agent de santé yi. ndax bu dee tey da nga ne man dama bëgg a nekk agent de santé da nga fi bàyyi métier yu baree baree bari wala liggéey yu baree bari branche yu bari nga ne damay def santé boo dina def santé am na passion bu bu ci am ñoom tim dañuy faral di ñaxtu indemnité wala seeni salaire wala seeni condition de travail mais lu mel ni hôpital nga fay liggéey en tant que médecin amul euh, détecteur yooyu ngay wax détecteur de fume yooyu ngay wax ñoom yooyu très maa ngay dégg ñu koy dénoncé lan moo tax ñu nangu di continuer di liggéey ñu xam ne njombe mën naa am tout moment te loolu ñoom dénoncé wuñ ko woon. waaw mais xam nga tamit man pour man euh, ñooñu il faut les comprendre pourquoi il faut les comprendre parce que tey ki nga xam ne ne salaire bi ñu koy fay bu ci passé 15 jours mu jeex. kooku du tal ay détecteur de fumée wax waxtaan wa dëgg sa la bu fekkoon ne fayoon nañ leen le minimum jàppale leen fexe ba teg ay plateau médicaux relevé parce que tey Sénégal il suffit juste nga teg. yenn plateau médical yu yu yu relevé yi mais boobaa bu bu sous région bi yëpp Sénégal lañuy ñuy fajoo mais tey am na xeetu faj yoo xam ne sax léegi dem Mauritanie fajoo ko moo gën a yomb nga ñëw Sénégal te pourtant ñoom ñëpp Sénégal lañuy jàngee ku fi nekk médecin su sous région bi ba ci Afrique du Nord ku ci bëgg a jàng médecine bu jaar yoon Sénégal nga koy jàngee parce que nekkul priorité ñi ñu jiite tey infirmier yi ngay wax euh, médecin yi. ak le corps médical mais tu penses que ne ñooñu tal nañu lijjanti hôpital bi set nax hôpital bi setul hôpital bi nii na alors que ne ñoom même dañu lekk lu ñu dundee amuñu ko ñooñu duñ ko def. waaw mais xam nga tey euh, directeur hôpital bi tey par exemple tey am na lu xewoon Linguère 2021 amoon na ñeenti liir yoo xamante ni faatu woon nañ si dañu dàq directeur bi rek euh, mu jeex ñooñu ñu jàpp leen après ñu bàyyiwaat leen mais est-ce que tamit mënut demee nii ci euh, ci hôpital bi ndax man dama jàpp ne du saa fekk si si pédiatrie bi mais directeur bi nga xam xam ne moom lañu dénk lépp lu jëm ci wàllum euh, sécurité foofu amul yenn jumtukaay moom dem est-ce que amu ci benn part de responsabilité boo xamante ne bu mag la. non xam nga les responsabilités sont partagées mais pour man part de responsabilité bi gën a rëy ki ko yor mooy le président de la république boo jógee tey ci le président de la république xam nga lii mooy njariñu importance am premier ministre. ndax président de la république tey mooy premier ministre mooy président mooy moo yor Sénégal mais beneen responsabilité yi yeneen responsabilité partagée yi day dem ci ministre de la santé ci boppam dem ci les directeurs généraux dem ci wàcc ba ci directeur hôpital bi directeur hôpital bi ci ci bi ci chaîne bi mooy ki ci gën a ndaw kooku kes kii nu nous ni que def la ay rapport am ba sonn gis nga ñoom dañuy yuuxu man ci Covid bi laa ko xam parce que nekkoon naa quand même ak euh, waa hôpital principal leen jàppale seen yenn combat yi ci ngay gisee ne ñii lépp loo xam ne ne. coow ma neen dama ne li les produit de base. pour ñu raxas seen loxo yi rek laa la produit hygiénique dañ doon am problème pour am ko. donc ñi am produit yoo xam ne ne te xaalis bi mu ngi fi loolu fu mu dugg ñooñu tu penses que ne gars yi ñi ñële dinañ tal di leen lijjanti pour jox leen pour defal leen ay ay ay pour mettre seen hôpitaux yi dans pour pour les mettre dans de bonnes conditions ils ne le feront pas parce ah. que ah. loolu nekkul seen priorité ah. le vrai problème de la santé c'est un problème de priorité. Sénégal dañoo xamul ne milliards yi ñuy dépensé. fan yii ci ginnaaw gis nga benn juge di benn promotion benn hôpital bu nekk en en en en le Demba Kandji benn promotion benn hôpital bu nekk en France mais pourquoi pas tey boo demee France les meilleurs médecins est-ce que xam nga ne ce sont des Sénégalais. dañuy jóge suñu hôpitaux fii di dem foofu di dispenser ay cours dañuy jóge suñu hôpitaux yi fii di dem foofu di aj di faj mais il suffit juste nga jox leen les moyens qu'il faut les moyens matériels bu boobaa képp ku feebaratu Sénégal doo fi jóge naan yaa ngi dem mais loolu déjà xaalis bi muy am mais xaalis boobu yëpp du dugg bu boobaa doo ko réinjecté waat bu boobaa si si si si si si si la santé mais mais lan mooy sa xalaat bu njombee amee ñu ne dañu ubbi enquête Euh, comme li ñu waxoon ci Louga ne dañuy ubbi enquête ci Linguère nañu ubbi enquête feneen ak feneen dañuy ubbi enquête chaque jour dañuy ubbi enquête mais dañuy gis ne presque du mujj fenn. waaw du mujj fenn parce que tant que le président de la République et euh, euh, président du conseil supérieur de la magistrature nga xam ne lépp ci moom lay dépendre. tey bu ñu ubbee enquête dem ba ci biir gis na ne ah ay nitam dañ cee dañ leen war a dóor loolu du dañ tant que le le le parquet est sous la tutelle du ministère de la justice loolu du dem fenn c'est-à-dire séparation des pouvoirs séparation totale des pouvoirs tant que amuñu ko ci réew bu réew bu bëgg dem lu muy njëkk def mooy loolu tey bu fekkee ne dañu def seen enquête gis na ne la responsabilité du du du du du du du du du ministre de la justice est engagée mais bu boobaa kooku du que euh, président ma noon xool leen xoolaat leen ñu teg ko si suuf bu ñu demee ba président de la république ne tey les codes de contrôle rapport yi ñu ngi nii comme ni journaux yi nekkee nii mu ngi nii sama bureau waaye maa ci teg sama sama sama sama sama kut sama sama conc maa si teg sama conc ku ma neex mooy dem ku ma neex du jàll rawatina nag ay ay ay enquête enquête bi du mujj fenn am na fi ay drame yoo xam ne garaaw na chaque jour nga dégg ay drame ñu ne ubbi enquête dootu fi amati dootu fi nii sóob ndax dem dajale parents xale yi jox leen ku nekk 2 millions ku nekk 3 millions defal leen ñëw def ni xotti seeni worma euh, ñàkkal leen xorom ñàkkal leen fayda parce que loolu yëpp lu koy waral mooy nos états ont un problème de rapport avec l'argent ñoom pour ñoom lépp lu am xaalis su koy faj aloo que ne daf ci am yoo xam ne ni da ngay jël des décisions fermes. mais mais mais Diouf Sarr mi ñu mi ñu dàq euh, lan moo ci sa xalaat est-ce que tamit dàq Diouf Sarr euh, rek solution la. bon man gis naa ñu bëri naan dàq Diouf Sarr dàq Diouf Sarr mais pour man dàq ju Sarr du solution boo dàqee ju Sarr et que l'existant le problème continue à exister amuluñu benn njariñ nga problème boo ko bëggee régler da koy régler ci racines yi fan la problème bi du jógee ndëgg ni daaw amoon na daawaati géej amoon na daawaati daawaati daawaati at bu jot nga dégg ne ne am na jigéen bu war a am doom ñu seetaan ko ba mu dee at bu jot nga dégg na ne am na ku war a uh, am problème mu deret ñu bàyyi ko ba at bu nga dégg problème mu santé bu Sénégal dañuy jël des professionnels de la santé les acteurs de la santé ñoom ñëpp ñu toog lan mooy la problème. li la santé au Sénégal ñu teg ko ñu xaatim ko bind ko jël programme bu leer ñu teg ko ñu avancé mais di def di pilotage à vu tâtonnement non roof kii dugal kële kooku bu ñëwee indi ay équipe teg c'est-à-dire di ci gën a garaaw ci santé bi mooy dañ ko politiser du nag les problèmes qu'il à la base politiser nañ ko fi xeetu politique boo xam ne ne ku nekk ministre de la santé looy njëkk a def am naa ay mbokk am naa ay militant am naa am naa. démb administration bi si boppam mais moom laay wax santé bi ci biir administration bi la nekk donc politiser nañ ko xeetu politiser boo xam ne tey da gis koo xam ne defarkatu dàll la mbaa nga gis koo xam ne ne ab enseignant la mbaa nga gis koo xam ne ne sax ab ab ab menuisier métallique la mbaa ab menuisier aluminium mbaa ab maçon ñu jëm na xool fu ñu la dugalee parce que tu es un politique donc politique bi nga xam ne ni moom lañu jël def ko ci lépp loo xam ne ne mooy administration bu Sénégal génn wuñ ko ci réew mi du dem. d'accord jërëjëf euh, Gaoussou Koma wax nga sa xalaat ci li xew ci hôpital euh, Mame Abdou bu ci Tivaouane léegi gis nañ ne euh, insécurité fan yi am na ci réew mi ndax yow fi nga dëkk ci pikin am na benn xale bu jigéen bu ñu fa rey te ki ko rey sax ki ñu njort ne moo ko rey nee nañu Pikine la dëkk insécurité boobu lan moo ciy sa xalaat. waa mais insécurité euh, pour mu man gars yi dañ koy wax fan yii rek parce que am na ñaari kaaw dee xaw ma ñett mais insécurité moom jóge fi nag te mosu fee jóg ñun ñi nga xam ne ci banlieue bi lañ dëkk dafa yeewoo suba ngoon gudde bëccëg da ngay gis insécurité bi am ci banlieue bi cest à moom laay wax sama yenn xarit ma ne leen Sénégal nañuy ñaan jàmm euh, Abdou Khadre boo dëkkee ci banlieue bi di nga gis ay xeetu jeunes yoo xam ne ay ndaw ay nit danga nga naan ñii ban xeetu raasu nit lañ cest à mooy nit ñi nga xam ne yow dalay lay leer ne tëral nit rend ko jàll dem ak ah naan ci ndox mi lañuy ñuy wale nga gis nit ñoo xam ne ragaluñu police ragaluñu commissaire ragaluñu gendarme ragaluñu armée fit bi ñu yor dafa jéggi dayoo te loolu yëpp dara waralu ko du dorog da nga leen di gis seen bëtti daje mu leer na la ne ñii lu si duñu te loolu y a des milliers et des milliers et des milliers dans la banlieue man pour man bu ñu bëggee xeex problème mu insécurité ci banlieue bi surtout Sénégal li ñu war a njëkk xeex mooy le problème de la drogue bés bu ñu demee nag bu contrôler loolu mën nañu dimbali ci baree baree bari ñu teg ay police de proximité fexe ba tey lu mel ni département Kër ko lu mel ni Pikine nga nga nga teg fi ay co mais Pikine dafa war a am commissariat central. bu mag a mag a mag nga teg fi ay commissariat yu baree baree baree bare bopp du wax ma bopp koñ bu nekk de mais commune bu nekk nga def fa deux deux commissariat ba pare ñuy rond mais dañ lay agressé nga woote police guddi ñu ne la amuñu oto amuñu oto ou bien ñu ne la amuñu dispositif man liñ ma cambriolé sama kër nu ma def mujjee def dama obligé jël gardien cité bi am na gardien dama obligé jël gardien di ko fay sama biir kër ne ko del ma sax xoolal kër yi ma dendeel pourquoi parce que gars yi dañuy ñëw indi seeni arme ñëw dajj sa kër nga mu leer la yow ñi ngi dajj sa kër te doo mën a jóg doo ci mën dara boo wootee gars yi dañ la naan dispositif amuñu amuñu ay ay éléments ou bien amuñu essence des fois amuñu essence lañ lay wax des fois amuñu oto donc le problème de la sécurité du Sénégal c'est un problème boo xam ne ne ñi nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur ak ah, le président de la république nañ ci jóg taxaw moo tax chaque fois man damay wax ne nga xam ne ne. politiciens yi ñu ngi koy soulever Sénégal ñun politiciens yi mën nañ ko soulever mën nañu wax ne ne woy kii du fi def lii kii du fi def lii xeex mais problème yi bu jógee nekkatul problème mu politique yi problème mu gang organisé yi la te bés boo dëkkee ci banlieue bi waxuma ministre yeex ay kii de waaye ñun ñu dëkk si banlieue bi di yaru génn di màgg ñoom di wax ñoom di nga xam ne ne Sénégal jàmm kese moo ko jig d'accord jërëjëf euh, Gaoussou Koma yooyu yaay nekk euh, président coalition Jotna léegi ñu wax ci lu jëm ci euh, wàllum élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal coalition na yéen ngeen nekk ay alliés wala ngeen nekkoon ay alliés xaw ma ak coalition wàllu bu ñu coalition wàllu xel yi dem ci PDS ndax yéen a àndoon ci élection locale yi élection législative tamit ngeen ànd ci ñu def investiture bëri na ay frustration ci ci biir coalition euh, wàllu euh, Sénégal euh, ndax mën nga ñu expliquer ginnaaw élection locale yi nan la coalition jot na desee ci coalition wallu Sénégal waaw xam nga ñun bi ñu demee effectivement ak waa PDS créé coalition wallu ñun ñoo ko toog wallu bi ñun ñoo ko xalaatandoo ñoo ko créendoo boo gisee ba fi may wax yow ni logo bi montre bi ci nekk ñun suñu montre la donc euh, waxtaan ci kii euh, ci ci ci ci programme waxtaan ci ci ci ci ci charte yi signé ko ba waxtaan ba juboo bi ñu demee ba ci biir Euh, am na ay rëq yu xër yu bare bari bari ci élection locale yi bokk mel ni Ablaye ñaan ku mel ni Arona Touré euh, ku mel ni Mamadou Ndiaye ku mel ni euh, ay cadre yu bari yu nekk biir jot na daal di demal seen bopp ñi daal di demal seen bopp seen i liste bopp. ci local yi ci local yi bi ñu jógee local yi ñi def li ñuy wax waxtaan sunu biir bi ñu waxtaanee ñi évaluer. fi ñu jot a jóge ci élection locale yi waaye liñ ci tënk mooy dañ ne ñun dootuñu àndatee ak wàllu ak PDS lu dul dañoo waxtaan ba tënk au préalable. après local yi. après local yi balaa ñuy dem ci élection législative ñu ne dañuy waxtaan bi ñu waxtaanee ak waa PDS. ñu waxtaan ci euh, problème investisseurs yi ñu jóge ci élection locale yi problème yi am yépp ba tënk ba juboo ñu ne léegi élection législative yi la ñu jëm waaye ci élection législative yi la jëm ñun ñu tegal leen suñuy condition suñu condition mooy am nañu ay leader lu mel ni ab Ablaye ñaan mu ngi foofu lu mel ni Kër masaar man maa ngi foofu lu mel ni Pikine Arona Touré mu ngi foofu Moustapha Wade bëri nañu ay leader yoo xam ne ñi ngi fi ñi ngi taxaw ñu ne leen ñun suñuy problème lii la bi ñu waxtaanee ba juboo ñoom ñu ne ñu ah problème yi ngeen ñu soulevé de gëm nañ ne loolu du ñu boole ñun dinañ respecté Ablaye Niane dina dem Touba su yow di nga dem Kër Massar diw dina dem fii dina dem ñu waxtaan ba tënk daanaka ci loolu ci ginnaaw gi nag ci lañ commencé di waxtaan ak Yewwi te waxtaan gi ñu doon waxtaan ak Yewwi man mii lañ mandaté woon pour ma dem waxtaan ak Ousmane Sonko ñu waxtaan boobu buntu ubbeeku ci waxtaan. d'accord mais coalition euh, jot na amoon nañu consensus ak euh, wàllu Sénégal ci élection législative yi. ba lépp impec amoon amoon nañ consensus ba juboo ba wax dëgg yàlla ba lépp impec. léegi bi ñu demee nag ba négociation yi. Euh, avancé problème bi yëpp foofu la amee. kii ak Yewwi. bi ñu demee ba juboo ak yi biñ juboo ak Yewwi boo xoolee kaaw Touba Touba ci élection locale yi Yewwi moo ko gañe woon parce que fépp foo xam ne yeewi daanaka gañe woon na fa yi moo fa doon mooy mooy ci bañeeru yeewi lañ doon dem mais mais mais Gaoussou comme yow nga nekk ci biir euh, wàllu Sénégal nekk ci biir ñi doon dox diggante yeewi ak wàllu euh, nan ngeen def ba ba waxtaan wi fan la commencé fan la seen xel wàllu demee ci yeewi wala yi seen xel fan la demee ci ci wàllu ak fan ngeen teg ànd fan ngeen ko teg waaw fi ñu commencé waxtaan bi mooy Eh, bi ñu waxtaanee waxtaan bu mujj suñu biir ñun waa wallu boobu la président Abdou mbay moom ngi foofu Mamadou Lamine Diallo ak waa PDS yi eh, bi ñu waxtaanee ak man ñu waxtaan ba wax ci fi ñu jug fi ñu jógee ci élection locale yi. ku nekk wax li la ci neex la ci metti yépp laata ñu jóg ci la la président Abdou mbay premier ministre daal di wax ne bu ma sañoon ñu jéem a xool naka la def. pour oppose pour que toute l'opposition se réunisse ci la gars yi waxee ne ah l'opposition de pour ñu réunir il faut que ñu waxtaan ak waa yi bi ñu waxtaanee ci la yoro mu PDS daal di ne mais Gaoussou est-ce que yow duñu la mandaté nga dem waxtaan ak Ousmane Sonko comme sa la ñu xool ndax loolu mën na nekk ñoom ñëpp ñu tombé d'accord ci waxtaan bi ñu waxtaanee ma waxtaan Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne ma man de awma problème mais sama problème mooy PDS. PDS il faut que ñoom ñu waxtaan ak Karim ba Karim joxe akooram si lañu amaat ñun beneen réunion waa Wallu bi ñu amaatee réunion boobu moo ñëw wax leen li ma leen wax bu ñun ñëpp ku ci nekk gis na ne ànd boobu kon war nañ ci mën a sori ndax waa Yewwi wax dëgg yàlla d'après Ousmane Sonko pare woon nañ pour créer benn liste ndax ñun au départ ñu ngi doon départ ci benn liste liste unit de l'opposition. Mm-hmm. bi ñu waxtaanee nag loolu gars yi gis na ne liste unique de l'opposition day metti fekk man ci ginnaaw gi ma dem Paris ma demee Paris nag ci laay waxtaan ak Ousmane Sonko ba ne ko mais liste unique bi bu mënta nekk est-ce que mënuñu def ñaari liste parallèle Yewwi def liste nationale am Wallu def liste nationale am département yi ñu jonc Ousmane Sonko ne ma Gaoussou li ngay wax noonu loolu c'est compliqué loolu mënta nekk ma dem waxtaan ci ak leaderu Wallu yi ñu si bëri tamit ne mënta nekk Abdou Mbaye daal di ne loolu war na mën a nekk de waxtaan bi départ bi fa la commencé bi ñu demee nag ba nga xam ne ne lépp ñor na ñu commencé nag di dajee kër euh, bureau de euh, siège yu Déthié Fall mais mais lan mooy seen position waa wàllu ci Sonko li mu leen wax dem leen gis Karim Wade ba pare. waaw mais il avait parce que ñoom dañoo amoon Sonko dafa amoon ay jaar-jaar du ma ci dugg nag ci rajo bi expliqué na ma nag lu bari fi mu jotoon jaar waa PDS ci local yi. ba waa PDS nu ñu génne ci affaire yi mu ne moom balaa muy àndateex PDS ak lu mu mënti doon il faut avalu Karim Wade ba mu leer ne Karim Wade joxe na avalam parce que bëggul tënk ba pare xëy ñu ne ah wax nañ li Karim comprendre ko donc bref loolu moom du ma ci dugg ay détails la yoo xam ne ñoom la engagé. maintenant bi ñu demee ba ci biir ba nga xam ne lépp yàlla def na ne mu sotti ñu commencé waxtaan euh, ci siège de Déthié Fall kon ne di waxtaan bi kon ne waxtaan bi fa la yàlla def ba waxtaan bi yëpp sotti mais waxtaan boobu dafa am ñoo xam ne kii di Boubacar kamara kii di Ablaye Niane wax dëgg yàlla dañ ci jouer rôle bu extraordinaire. comment ndax Ousmane Sonko ab lay ñaan la doon déglu ci lu bari Ablaye ñaan moo ko doon canaliser di ko wax fu mu doon jaar ci lu bari di ci waxtaan di ko jox euh, di waxtaan ak moom ci nak la ñu war a waxtaanee ba trouver consensus bu ñu amoon blocage ci Karim wàdd bu wax ak Camara moo doon oo Karim Wade donc ñun jamono jooju fekkoon na ñu nekkoon ci benn coalition bu ñuy wax taba jot na ak Boubacar Camara ñun ñooñu ñoo ci jàpp jàpp ci jàpp ci ba yàlla def lii am léegi. boo gisee suñu problème ak waaw wàllu mooy bi ñu demee ci négociation yi ñun waa jot na. ak yeewi ak yeewi. maanaam blocage bi euh, ab ñaan Niane docteur Ablaye ñaan ak euh, Boubacar kamara ñoom ñoo nekkoon. intermédiaire diggante Karim Wade. Sonko ak euh, leader yi voilà bon du ma ne leader yi ndax Ousmane Sonko lañ nekkaloon te Ousmane Sonko sama téléphone la doon wootee ma koy jox Ablaye Niane ñuy waxtaan Boubacar Camara moo doon waxtaan ak Karim. ñun bi ñu demee ne ba nga xam ne ne waa jot na ndax loolu moom ma gën a intéressé waxtaan nañu ba mu leer nañu ne lii day sotti dañu oo réunion Boubacar Camara lu mu gaaw gaaw ne ko Boubacar waxtaan ak Karim parce que boobu ba léegi Ablaye Niane waa yeew yi bëggoon nañu Ablaye ñaan ñëw seen liste. Mm-hmm. waa Wallu tamit bëggoon nañu Ablaye ñaan ñëw seen liste. bien avant jubóo bi. bien avant jubóo mais si diggante mais nag ci biir lépp ci biir waxtaan bi. ok parce que dañu wax ne Ablaye Niane. Euh, Touba bu àndee na wallu voix wallu ak voix Abdoulaye ñaan boo ko boolee da doon ëpp voix Yewwi yi mhm. donc loolu dañ ko mënoon nga ko teg baromètre la boo xam ne après da nga ko doon teg ci balance bi pour xool kan moo doon jiite Touba. Mhm. ci la waa PDS Abdoulaye ñaan daal di wax ñu waxtaan ak Boubacar Camara Boubacar Camara ne moom dina waxtaan ak Karim ci la waxtaan ak Karim Karim ne ko léegi Abdoulaye ñaan na ñëw ci wallu bu duggee ci wallu comme que mu ci tabax jot na bi. ñëw ñun waa jot waa wallu moom la ñuy jiital bu boobaa Touba. donc noonu la mujjee demee mais nag yàlla def bi ñu jiitalee laay ñaan Niane Ablaye ñaan ñëw dugg. ñu ne Ablaye Niane la ñuy jiital mu dem Touba. Mhm. ñu dem ba biir. ba war a def liste yi ba dugal liste yi ñun boobu jëpp jàpp nañ ne Ablaye Niane mooy jiitu Touba man maa waroon dem département bu Kër Massar ñu ne foofu Baara Gaye kon ko benn góor rek moo fa nekk Baara Gaye moo fay dem man dañ may yóbbu liste nationale ci diggante bi nag la ñuy joogoo jot fichier bi wane ne ne naka ab Ablaye Niane jiitaluñ ko Touba dañ ko yóbbu 15e place man yóbbuwuñ ma. ci 11 première place yi dañu yóbbu 35e euh, place. am na lu ma xaw a euh, desee leer tuuti. Euh, xam nga tey euh, Ablaye ñaan comme ni nga ko waxee Karim dana ko woon ñëwal ci wàllu euh, dinañ d'accord yow nga mën a jiite wàllu ci département bu Mbacké. Mm-hmm. mais bi ngeen demee ba consensus am entre wàllu et yeewi mm-hmm. est-ce que décision bi mm-hmm. dafay jugee directement ci Karim Wade wala dafay jugee ci leaderu yeewi ak leaderu wàllu yi non si décision bi ci Karim Wade la doon jugee parce que waa yeewi dañuy am ñu ñuy jël waa wallu am ñu ñuy jël. kon ko wallu moo war a jiite liste boobu. comme que ci bannière wallu lañ war a doxee. Mhm. loolu li ñu waxtaanoon ba tënk ko. loolu dafa waroon continuer. ba yeewu d'accord na ci. ba yeewu d'accord non mhm. mhm. bi yëf yi noonu la demoon ñun li ñu tënkoon ñun loolu la ñu war a doxal mais bi ñu demee ba à la dernière minute ñun toog nañ ñett trois jours après la ñuy doog am information bi dañuy doog xam ne ab Ablaye ñaan jiitewul Touba ndakate man sànni nañ ma trent e place. waa mais est ce que tamit Gaoussou bi ngeen di waxtaan yéen waa Wallo est ce que leaderu PDS ñoo nga foon ñoom ñëpp àndoon na si ñoom Saliou Dieng euh, Mayoro Faye àndoon nañu si ne euh, ki nga xamante ni tey mooy docteur Ablaye ñaan moom mooy jiite fi nga xam ne mooy département bu Mbacké. waaw mais li ci gën a garaaw mooy waxuma sax ñoom ba ci Lamine Thiam ñoom ñëpp bu ñu toogee ñuy waxtaan ak ñoom li ma lay wax nii ñoom loolu la ñuy wax. waaye ñun pour ñu am lu gën a leer Boubacar Camara dafa waxtaan ak Karim ba Boubacar wan ñu message échange yu mu am ak Karim Karim confirmé ko ne ko effectivement dina fexe ba Mor Ndiaye ak man bokk ci 11 premiers places yi dina fexe ba Ablaye ñaan jiite Touba cest à loolu lañ conclure woon ñun. loolu moo tax ñun te ñun bi jamono ji ñuy wax noonu ñun amoon nañ suñu parrainage 56 000 parrainage 57 000 parrainage amoon nañ suñu 15 millions caution yoo xam ne mu ngi woon ah man sama loxo la nekkoon donc ñun on avait tout ñoom ñu ne ñu bàyyi leen loolu lépp ngir ñëw ñun ñëpp ñu ànd. léegi léegi euh, bi nga xamante ni tey ànd ngeen ak waa euh, yeewi askan wi. Mm-hmm. investiture yi bi mu génnee gis nañ ne frustration bi dafa bëri même docteur Ablaye Niane moomu bokk na si ñu frustré ak euh, yow mi sax jàpp naa ne bokk nga si ñi nga xam ne ñoo ñoo frustré mm-hmm. est-ce que gisoo ne yéen li ngeen bëggoon mooy am doole pour néewal doole benn bokk yaakaar euh, est-ce que jàppoo ne lajjite am na ci. waaw lajjite am na ci parce que dañoo euh, idée de départ bi dañ koo faussé parce que ñun dañ ne ñëpp mënuñoo nekk député. mënoo dugal ñëpp waaye da ngay fexe ba ñi nga xam ne ne ñoom nga àndal ànd goo xam ne danga ko tënk ci ngor ànd goo xam ne da nga ko tënk ci kàddu ñi fexe ba ànd boobu ñu respecté ko ñi fexe ba tey bu fekkoon ne ñun dañ doon dem waa wallu kese dañ doon dem bu ñu amee sept députés fa la ñuy yem peut-être ou bien parce que on bu buñ ko lépp buñ ko tënkee. ci résultat yi am ci élection locale yi. yi ñu génn mais ah formule bu bees bi nii mën nañ egg ba 30 députés. mais loolu nga fexe ba coalition bu doy ni coalition jot na coalition bu mel ni coalition tabax coalition bu euh, say alliés naturel yi ay ku mel ni Abdou Mbaye est-ce que xam ne Abdou Mbaye dugaluñ ko benn mel ñu mu proposé woon dugaluñ leen dañ leen c'est-à-dire nekkuñu sax ci bi suppléant sax ñu leen kooku foofu defuñu foofu ah yeneen leader ah yeneen leader léegi ñoom waa PDS ñi jël seen i nit dugal la dugal la dugal la dugal dugal da ngay gis ay ñoo xam ne daanaka boo ci génnee Mamadou Lamine Diallo ñi si des ñëpp ba ba quatorzième place ñoom la loolu c'est pas c'est pas de ne ginnaaw yàlla ak yonent bi lii bu amee bu doon ñoom rek la gars yi wóoluwuñu leen woon. donc bu doon ñoom rek la. benn naïveté politique amul ci yéen ndax yéen tey par exemple tey yéen coalition euh, jot na yéen da ngeen a bokk si ñi nga xamante ni tey yéen a doon togg diggante euh, wàllu ak euh, wàllu ak yeewi. Mm-hmm. xanaa kay yéen mm-hmm. fi ñuy confectionner liste yi. Mm-hmm. xanaa war ngeen ci am war ngeen ci am taxaw war ngeen ci am kàddu. waaw mais xam nga tey ñun liste yi fi ñu koy confectionner mooy. jël suñuy dossier da ngay jël sa casier judiciaire sa extrait naissance ak sa photocopie carte d'identité ak sa déclaration individuelle nga joxe ko léegi mandataire bi nga xam ne mooy dugg bi ministère de l' intérieur kooku li ñu waxtaan ba juboo kooku moo ko war a respecté rek mu ngi mel ni tey yaa ngi dégg kaaw ñu naan eh, eh, eh, yeewu bi xaw ma nan saar xaw ma nan décc xaw ma nan nan nan da ci am loo xam ne mandataire bi moo fa am accès mandataire boobu nag bu bëggee def yëfu caay da koy def cest à ñun dañoo waxtaan ci kàddu waxtaan ba juboo jàpp na ne li ñu waxtaan ba juboo ko waxtaan ko ci kàddu loolu noonu la ñi ñu seqal ñun mu leer nañu ne ñii ñi ñu seqal ay gor lañ ay nitu kàddu lañ ñooñu lu ñu wax dañ koy def ñu dem ba ci biir nag ñoom ñu def leneen loolu nag ça di dire autre chose ça veut dire que bi ñuy fas yéene doxal ak li ñu jàppee politique ak ñun ñu ñu jàppee politique d'accord léegi euh, Gaoussou Koma euh, yéen coalition wàllu ak coalition yeewi mm-hmm. euh, ñaari coalition la yoo xam ne nañ ne euh, war nañoo mën a ànd pour néewal doole benn bokk yaakaar waaye est-ce que euh, bi ñu koy togg. maanaam fi ñu koy waxtaanee est-ce que nekkutoon est-ce que jamputoon ba ëpp li tax man la jamputoon ba ëpp mooy fekk na jamono jooju wàllu waxtaan ak ay nitam ci département yi kan moo koy jiite waxtaan ak i nitam kan mooy nekk ci liste nationale bi fekk na tamit yeew yi waxtaan ak kan mooy nekk ci département yi kan mooy nekk ci liste nationale bi mais bu ñu demee ba dernier moment yeew yi soppi euh, wàllu soppi kon configuration bu bees tàq moom mooy am te amu leen woon temps aussi pour dem ci base bi pour expliquer leen est-ce que loolu mën na tax frus loolu taxul frustration yi yokk. am parce que tey euh, da ngay jël ay ñoo xam ne ay kilifa lañu ku mel ni sëñ Mansour ci Djamil kooku soxlawul nga koy jox 10 postes da nga koy jox benn tey da ngay gis ay leaders yoo xam ne dañuy bu ñu demoon élection ñoom kese mënuñoo am benn député mais fexe nañ ba dugal trois à 4 personnes ci liste yi. mënoon naa te mënoon naa ñàkk. parce que ñoom ñëpp pexe ñu si bari suñu leaders yi seen pexe yëpp mooy préparer 2024. mooy am 3 4 députés xool nu ñuy organiser woo pour mën a song pour nekk candidat en 2024 amul leneen mais bu fekkoon ne ne intérêt Sénégal kese moo ñu ñor ñun ñëpp bu boobaa yow da bàyyi man ma bàyyi keneen bàyyi keneen bàyyi ku nekk même bu dee benn benn nit ngay dugal ku nekk dugal benn benn nit boo xam ne lenn na ne kii fi nga koy dugal après il sera député mais la somme de ñooñu ñëpp après ñooy ñooy dem taxawal euh, taxawal parti mbaa taxawal coalition à l'Assemblée nationale. waaw mais mais frustration bi ci biir Yewwi ak ci biir euh, wàll frustration boobu bëri na am na ñu bari ñoo xamante ni euh, nee nañu ñoom. Euh, maanaam zélé nañ seen i seeni i euh, seen activité politique euh, tey yow sa analyse politique est-ce que jàpp nga ne ñaari coalition yi wàllu ak yeewi ci département yi mën nañoo jàmmaarloo ak bennoo waa mën na ne ci idée de départ bi ñu amoon parce que ñun ñu di waxee man mii di waxee yow may président jot na bind naa presse bi def naa yéen sa bind naa leen wane na ñun suñuy activité biir wàllu dakkal nañ ko. du ngeen campagne. suñuy activité biir tabax dakkal nañ ko maintenant coalition opposition bi bari na fi ñeneen ñi ñu war a mën a jàppale bari na fi xam nga kis ki nu mu tudd Abdou Xaat ñun bu ñuy rey suñu bopp dañuy rey suñu bopp ngir Sénégal bu ñu nee dañu bëgg changer réew mi dañ koy changer pour jële fi Macky Sall mi nga xam ne mu ngi def lu ko neex pour teg fi lu ko gën waaye bu ñu gisee ne ñoo xam ne ne yow départ guñu demaguñu mu leen nañu ne kii jikko politique ba nekkoon ci moom démb barki démb kii li mu jàppee politique démb barki démb fas yéene woo si soppi dara mooy lan mooy war wax lu mu gëmul wax lu dul dëgg kooku bis boo ko jàppalee it bis bu amee lu mu bëgg il sera pire que Macky Sall moo tax ñun bu ñu toogee ñu analyser ñu ne yëfi kat muru fuuf ko fëriñ la. mais lii est-ce yoonu Karim Wade ma ngi ci. waa xam ñun euh, li ñu waroon wax Karim wax nañ ko ko li ñu waroon lim ñu waxoon moom def ko. ñun fi ñu koy xaar sorwut mais li nga xam ne ne moom moo ñu engagé ñun en tant que jot na def nañ suñu analyse ñi ne waa wallu mooy waa presse yi ñu àndaloon ànd ak ñoom ci ngor ànd ak ñoom ci benn kàddu ànd ak ñoom ci gëm-gëm ànd ak ñoom ci dugg liñ ñuy waxoon respecté wuñ ko li ñuy waxoon dugg ñun li ñu def mooy uh-huh. suñuy activité non seulement dakkal nañ ko ci biir wàllu waaye dinañ waxtaan xool la démarche à suivre feex élection législative yi ñu xool ban parti ou bien ban coalition de l'opposition mais mais euh, Yewwi ci opposition bi la bokk est-ce que dàqu leen man dàq ngeen ànd ak Yewwi. waaw mais xam nga tey euh, boo ànd ak rek mooy da ngaa ànd ak Wallu. mais Yewwi seen yoon nekkul ci li nag. parce que ah. parce que parce que. mais li ngeen def Wallu nekku ci. parce que panachage bi am. boo xoolee waaye wallu ñu ngi biir yeewi waaye yeewi ñu ngi biir waa wallu certes seen yoon nekku ci certes waa yeewi wax dëgg yàlla seen yoon nekku ci mais mais on est en politique te boo nekkee en politique da ngay booy def analyse da nga koy def de façon globale ñun ni ñuy analyser yëf yi mooy dañuy waxoon ne dañoo rey suñu bopp pour lii am pour ñu ne Sénégal dootul amati xeex ay doomu sénégalais dootuñu deewati ci mbedd mi du ñu ne kenn doot fi taxawati naan ñu ay troisième mandat dañuy imposer la cohabitation à Macky Sall waaye ñun bu ñu waxtaanee xam nga lan lañ ci déduire dañ ne gis nga ñi ñi ñu jàkkaarloo nii même bu ñu nekkee ay député Macky Sall kenn du ko imposer cohabitation xam tax. Mm-hmm. ñii même bu ñu nekkee ay député bu ba lépp lu Macky Sall bëgg assemblée nationale ñoom loolu la ñuy voté ndax tey gis nañ ne. li xew ci maire rek moo fi xew. li xew ci maire moo nar am parce que tey bu fekkee ne ne yow li ngay wax sa kaddu sëñ bi kaddu dañu war a toll foo xam ne dañ ko war a delloowaat. ci réew mi mais xam nga Gaoussou li ma si jaaxal yow yaa ngi wax kàddu mais bu dee tey Karim Wade tey moom moo respecté wul kàddoom mais Karim Wade kese euh, ñeneen ñi nag wax dëgg yàlla yéen a leen si bëgg a laaxaale te seen yoon nekku ci même ci biir wàllu Sénégal aussi. waaw moo tax ma ne la euh, ñun. ki nga xam ne moom la moo nekkoon suñu interlocuteur direct par le biais de Boubacar Camara c'était Karim Wade boo xoolee bu ñu amee li ñuy wax Karim Wade lañ ko waxal maintenant li mu def loolu dañuy bàyyi sénégalais yi ñun suñu décision jël nañ ko ba pare suñu décision mooy ànd gi ñu fas yéene woon ànd ak ñoom. wàllu yeewi wàllu ak yeewi ñun dakkal nañ ko. jéem a xool naka la ñuy réorganiser jot na li gënoon jafe tey consensus boobu am nañ ko mooy waxtaan nañu ak tous les leaders de jot na pour xool naka la ñuy organiser woo pour après élection législative bi jot na ñu def ko benn parti politique. parce que on s'est dit que ne tey jot na dafa bëri ay leaders ko boo demee Ablaye Niane mu ngi Mbacke Gaoussou mu ngi ci banlieue bi Touré mu ngi Pikine kële mu ngi fële kële mu ngi Sédhiou kële Gassama mu ngi ku nekk dafa bëri ay leaders yoo xam ne ñi ngi si seen ay leaders gox-goxaan léegi leaders yi la ñuy dajale def ko benn parti politique pour mën a am un parti boo xam ne day demee day représenter dignement les politique mooy ñoo xam ne politique la ñu bëgg def métier ay politiciens de métier la te ñooñu xeetu politicien boobu xeetu nit boobu tant que jëluñu leen ñi sepp leen ba ñu set wicc ñi sànni leen fële jël teg ay sénégalais yoo xam ne intérêt Sénégal moo leen ñor Sénégal moo leen ñor réew mi ñun gëm nañ ne bu fekkee ne nii rek la pareegul pour avancer. d'accord jërëjëf euh, Gaoussou Koma yow yaay nekk président jot na léegi élection législative ba tey euh, Benno Bokk Yaakaar dañu gis ne ñoom respecté wuñ parité ci seen liste euh, suppléante yi bi tamit ñoom dañoo déposé woon ay parrain yoo xamante ni ay parrain yu parrain ëpp la te loolu euh, loi bi daf koy tere coow li si am euh, dégg nga ko euh, lan moo ci sa xalaat en tant que acteur politique. waaw leen rek moom sama xalaat mooy damay naxarlu ñàkk déggoo opposition sénégalaise bi c'est-à-dire que bi dañuy sóob rek waaye sénégalais ñor ñu leen intérêt Sénégal ñoru leen. parce que ñàkk respecté parrainage ci élection yi ak ni ko mag Sall tënkee nii ça veut dire ne ak lu mënti am. bennoo moom warul mën a dem élection. ah bon waaw c'est-à-dire bennoo warul am fu mu mën a jaar ba war a mën a dem élection mënta ne maintenant tey au lieu que opposition bi yëpp def benn bloc pour l'intérêt du Sénégal ñu ne Macky Sall yaa fi indi waaye yàlla dogal na ne tey yow doo dem da nga koy accepter par nii ou bien par naa imposer ko par force moom Macky Sall mu nekk observateur waaye du dem bennoo nekk observateur mais du dem élection yi. mais au lieu de ça kenn ku ci nekk ci opposition bi yaa ngi xool nooy éliminer keneen ki pour récupérer ay voix am opposition bi ñoom ñoo nekk di xeex di reyante seen bopp alors que ñoom. pour l'intérêt du Sénégal pour ce cas précis ñoom dañu waroon def benn bloc waa aar waa yeewi waa wallu waa buntu bi waa mais parce que benn respecté wul parrainage bi benn mais mais ministre de l' intérieur dafa génn benn arrêté euh, nee na euh, arrêté bi boo ëppalee euh, yàqul say pare xam nga bu fekkoon ne Benno dafa ëppalee rek garaawul waaye dafa ñàkk respecté parrainage bi te boo déggee sorte Mimi Touré bi da leer ne kii li mu wax da koo teg fu leer nañ te ñun waxtaan nañ ci ak ñi nga xam ne ne. ay juriste lañ ñun su suñu biir coalition bëri na ay juriste ku mel ni docteur Abdoulaye Niane juriste la keneen ak keneen li daanaka coalition bi yëpp ay juriste ñi si jot a ñëpp dañ ne techniquement juridiquement Benno mënta dem. ci élection yi ci yi bu fekkee ne dañuy jël affaire ëppal bi teg xaw ma jurisprudence Malick Gakou jéem ko lëndëm lëndëmal lëndëmal même bu dee benn parrain la loolu garaawul waaye problème mu parité bi. Mhm. loolu dafay exclure définitivement Benno des élections. mais mais Benno ñoom nee nañ. Euh, ba ba bennoo rek li ñu wax laa lay wax. Mhm. ñoom nee nañu seen liste euh, suppléante yi. Mhm. moom moo respecté wul parité waaye seen liste titulaire bi respecté na parité. te nee nañ ñoom si li ñu wax nee nañ loi bi euh, concerné wul daal maanaam liste euh, suppléante rek comme moo respecté wul parité boobu rek moo du dem seen liste titulaire yi euh, mën naa dem ci élection yi. waaw mais xam nga nekk ci dëgg moo gën bëri ñoom ñu moo ñoo la gën a leer ne li ñuy wax noonu. du dëgg amul bopp amul genn c'est-à-dire même ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne nekkuñu sax ay apprenti waxuma la ay apprenti juste ñoo la xam nañ ne loolu ñuy wax noonu. d'accord xel nangu ko li am mooy Benno warta mënta dem élection législative. loolu rek moo am. amul leneen loo xam ne war nañ ko mën a teg ci table ñu euh, wax nga sànq bu doon opposition bi ñëpp ànd nañ man ngeen euh, man ngeen a gàllankoor président bi maanaam Macky Sall ak waa Benno ñu bañ a dem ci élection yi mais tey par exemple tey euh, Macky Sall ni ñu ko xamee ci yi mu am xam ne bu si participé wul euh, beneen coalition mooy am majorité te bu amee majorité cohabitation mooy am ak Macky Sall bi nga xam ne tey euh, démocratie chaque jour ma ngi koy ma ngi koy dëggate est-ce que xel nangu na bien vrai que moo peut-être moo war a am mais est yow sa xel jàpp na benn yoon organiser ay élections législatives sans Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga Sénégal yu bari loolu la ñuy wax est-ce que xel nangu na dem élection législative sans Benno Bokk Yaakaar xam nga cour de justice de la CEDEAO dafa waxoon ne génn arrêté ne parenage bi ni ñu koy defee baaxul. amul lenn lu ci baax. un état de droit un pays qui se respecte war na mën a def lépp ba mu des xeetu parrainage bi mais moom dafa forcé def ko. ça veut dire que ne le Sénégal l'heure est Sénégal am na problème bu garaaw a garaaw a garaaw cest à bi nekk di am te kenn teguñu ko ku dul Macky Sall Sénégalais yi taxaw di xool dem ba egg ci ne Macky Sall moom ak lu ko neex ak lu ko neex mu def ak fu mu jaar yoon la loolu ça veut dire que ne réew mi amatul justice te gis nga réew bu amatul justice sëñ Abdou Khadre insécurité bi ngay wax noonu insécurité bi ko gën a moo nar a am mm. gis nga réew tant que demuñu ba parti bi doog a juddu tey ak parti bi fi def milan yem dolo respecte yem yem yem doole ci kanamu yoon boobaa réew moomu Euh, lu garaaw garaaw mën na fa léegi coalition yeewi ñoom tim euh, si si Dakar seen liste départementale bi dañoo waxoon ne respecté wuñ parité ñoom ñu def recours euh, conseil constitutionnel conseil constitutionnel weddi direction générale des élections wax ne waa yeewi amoon nañu sañ-sañ def ay def ay changement mais ci seen liste nationale bi tamit dañoo wax ne dafa am benn jigéen boo xam ne dafa nekk ci liste titulaire bi nekk tamit ci liste suppléante bi loolu tamit yow lan moo ci kaawu Yewwi ak kaawu Bennoo ñoo yem sorintawuñu man pour man ni liste Bennoo bi warta mën a dem liste Yewwi bi tamit noonu la war a bañ a demee ban si liste nationale bu bu bu Yewwi bi sa à ñoom ñaar seen liste yi pour man ak ñi nga xam ne waxtaan naa sax ñoom ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum yoon liste yooyu warta mën a dem léegi li am mooy dañu dem ay élection bennoo warut bokk yeewi warut bokk ay erreur la yoo xam ne ñoom ñoo accepté dem élection ci parrainage bii tey opposition bi warul woon mën admet le président le premier ministre Abdou Mbaye wax na fi ne bu opposition bi bu ñu dem bu ñu dem élection gars yi ñu ñu koy dal lu nekk parce que il avait vu juste mais, il avait mais, vu venir. waaw mais Gaouss man euh, li nga wax ni peut-être man tim am na ay juristes yoo xam ne euh, ak ay experts électoraux yoo xam ne ñoom nee nañu li nga xam ne mooy kaaw Benno Bokk Yaakaar ci seen liste nationale bi parité la euh, irrecevabilité la te bu dee kaawu yeewu bi inéligibilité la te loolu loi bi L179 li mu wax mooy candidature concernée bi maanaam candidat concerné bi. moom moom la ñuy moom la ñuy rejeté selon code électoral bi ak euh, yenn ci expert ak ku ci mel ni professeur Ngouda Mboup man loolu laa dégg ñu wax ko ci. xam nga xam nga tey euh, droit moom interprétation bi ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal droit. juriste bu ci nekk. bu jàkkaarloo yow bu la waxee ni ma ko gisee keneen ki du bokk ak keneen ki. loolu moom leer na ñëpp. gis nga fi gis nga ma problème bi fu mu nekk mooy. benn ça montre que ne parrainage bi n'avait pas sa place. Mhm. baaxul baaxaanewul. leneen li mooy que ne élection législative yii Sénégal parewul pour organiser ay élection législative man pour man. Sénégal wala Macky Sall. ma non boo boo déggee ma ne Sénégal je parle de Macky Sall boo déggee ma ne Macky Sall parce que c'est le chef de l'État c'est lui qui incarne euh, les institutions de la République. léegi man dama jàpp ne ne euh, dafa bëri ay erreurs yoo xam ne dafa en la laps de temps très court dajale na xeetu dajale boo xam ne. élection yi ñu jëm moo nar a nekk élection yi gën a lëbëjoo li gën a jaxasoo dans l'histoire politique du Sénégal man li ma gisoon mooy toute position toog waxtaan Macky la ñun ñëpp ñu waxtaan même bu fekkee ne dañuy repousser pour quelque mois élection yi ñu ne parrainage bi dañ koy jël ñu teg ko teg ko fële képp koo xam nag bëgg nga dem élection législative am nga say moyens am nga sa caution bu boobaa da ngay dem bu ou bien bu fekkee ne parrainage dafa war a am ñu teg ko ci ni ko cour de justice de la CEDEAO waxee parce que mais dans tous les pays du monde dans tous les grandes am na fa ñu teg ko ci anam boo xam ne ne day leer mu leen la képp koo xam ne teg nga ci yoon di xam ne teg nga ci yoon di nga am assez d'outils yoo xam ne di nga mën a contrôler que ne yaa ngi ci yoon ku nekkul ci yoon ñu xam ne ne nekkoo ci yoon. kon ne da bëgg contrôle bi ñu indiwaat ko à zéro. man daal pour man élection yi warul mën a am. ndax mais est-ce que élection yii nii tension bi euh, peut-être ñu bari gis ñu ko mais tension am na te élection yi euh, accès gul te nawet bi aussi euh, ma ngi ñëw mais euh, jàppoo ne bu ñu ko organiser ci anam bii ndax ñu bari dañu ne benn wut a dem ci élection yi te benn gi ma gis ñoom dinañu forcer pour dem fi ma ko teg nag mooy damaa yàgg gis Macky Sall di forcer ay mbir. Mm-hmm. di dem est-ce que bu ñu demee ci ci ci ci ci moment bii nii problème mënut am. non problème élection yi moom bu amee. xamal ne Macky Sall problème la indi waaye élection yi moom gisuma lu war a mën a tax man benn nawet bi dina tax nawet bi rek problème la déjà nawetu ren bii te commencé na taw taw bu met ci àll bi. Mmh. nawet bi rek problème bu garaaw ak facteur la pour war a mën a éli pour mën a repousser élection yi fii ba peut-être décembre. nawet bi kese laa la wax déjà problème problème bu rëy la mais boo ci génnee nawet bi mais climat de confiance bi waroon am. manque de confiance bi am entre l' opposition et le pouvoir entre l' opposition et l' loolu kese war na tax ñu toogaat waxtaan. c'est-à-dire le président Macky Sall opposition bi yëpp ñu waxtaan carte sur table ñu ne ñun de lii ah lii ah lii lañ gis opposition bi ne joxe ñoom tamit ñun ñu joxe suñu xalaat bu jëree ñu repousser ko ñu repousser ko mais man pour man pour élection yi war a mën a jaar yoon ñu tekk ci yoon nga xam ne bés bu ñu jógee ku gañe na xam ne ne gañe na ku gañewul na xam ne ne gañewul Sénégal bañ am ay lendemain yoo xam ne ne vraiment ay lendemain sombre la élection yi dañ ko war a reposer. waaw dernière question bi mooy yow sa relation ak euh, Ousmane Sonko ñenn ñi dañu jàpp ne Ousmane Sonko instant bi dafa am euh, ay mën nañ ko tuddee euh, ñu ko jàpp otage ay lobby yoo xam ne ñoo ko war te ñu ko wër ay acteurs politiques lañ yoo xam ne ay anciens lañ ñooñu ñenn ñi jàpp nañ ne dañu ko yàqal. waaye defaru lañu ko yow lan moo ci sa sa appréciation. man daal sama appréciation mooy li ma waxoon Ousmane Sonko euh, boobu dara taxawagul yi sax taxawagul bi ma waxee yéene gi mu am pour yi pour ànd ay yenn ni ñuy oowee. Euh, kilifa politique Sénégal ñi nga xam ne depuis jamonoy Senghor ba léegi ñu ngi fi xam nga ma ko waxoon moo pour mot dama ko Ousmane mu ne ma mën a ko bëy day ànd ak moromu bëyam ma ne ko yow ñu ngi may limal fii yëpp ñii ay bukki lañu ñii ay segg lañu ñii ay génd lañu bés boo duggee seeni biir dinañ la rey fees la di la tong tong balaa ngay comprendre ne ñii rey nañ la fees nañ la tong tong nañ la fekk na ne yow rees nga bu yàgg Ousmane Sonko dafa def une erreur politique monumentale et en politique les erreurs se paient cash te après les élections législatives nga ciy xam dara ñi mu àndal. ñu ay nawleem ci politique gis nga nit booy ànd da ngay ànd ñi nga xam ne ne leer na la ne bokk ngeen gëm-gëm bokk ngeen gisin bokk ngeen doxin Ousmane Sonko opposition radicale la woote woon. ñun sax des fois doon nañ ko wax ne ko non del jéem a bii ñu génn nii tey ko wër nii ñooñu ñëpp est-ce que xam nga ne dem nañu rencontré leen pour ñu ànd Ousmane Sonko dañoo dañuy dem ànd ak Ousmane ñoom ñëpp ñu ne ko fa ñukk dem ànd ak Idrissa Seck parce que il savait que ne bu ñu àndee Ousmane Sonko Ousmane Sonko da doon daaneel Macky Sall mais Ousmane Sonko daaneeloon Macky Sall war a yoraat réew mi yeneen ñaari mandat arrangé leen ñoom Macky Sall nekkoon président de la République moo leen gënaloon téeméeri junni yoon Ousmane Sonko nekkoon nekk président de la République. donc yow ci diggante 2019 ak léegi lan moo ci war a mën a changé ba man Ousmane Sonko ma war a mën a jël sama électorat. war ko mën a jox ñoo xam ne ne maa ngi leen di mayaat doole ñoo xam ne xoolal xoolal tey ñi ko wër ñoom ñëpp politiquement ils étaient morts yow say adversaire de demain nga leen may ay doole boo xam ne suba ñoo leen di suba ñi mu àndal nii la Macky di utiliser ñooñu ñoo koy xeex ñoo ñooñu ñooy tas électoral ñooñu ñoo koy jaxase donc dans dans ce cas de figure dans coalition là benn perdant lay am mooy Ousmane Sonko gis nga bu fekkee ne da nekk ci benn dynamique sénégalais yi la gëm la Sonko président jot na Ousmane Sonko bu ci nekkoon ba léegi je sur élection locale dina am lu ëpp fuuf li mu am ci ay maire élection législative bu ñëwaatee ci même dynamique boobu dina am foofu parce que sénégalais ñu suuroon yenn xeetu politique yi mais yow ñi nga xam ne sénégalais yi suuroon nañ leen bedd woon leen ñooñu Ousmane Sonko da leen joxaat crédibilité Ousmane Sonko da leen joxaat du crédit fexewaat na ne ba dugalaat leen ci système bi te ñoo pare woon nañ ci léegi ñoo ñu suba ñooy indi politique politicienne ñoo koy war ñooy dem ba ci biir changer ay liste ñooy dem ba ci biir rocc ay feuille boo gisee li nekk di xew fan yi acide si de police yi nga xam ne ne euh, ndox du bàyyi yoonam. Ousmane ko dafa def l'erreur de sa vie loolu wax naa ko ko moom wax naa ko si télé yi wax naa ko si rajo yi bëy day ànd ak ay moromu bëyam boo duggee ci biir segg mbaa ci biir gaynde lu la fa fekk lu la fa dal yaa ko teg sa bopp. jërëjëf euh, Gaoussou Koma mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, Mamadou Diawa Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi euh, Gaoussou Koma moom mooy euh, président jot na kon mbokk ñu leen di jox di daje samedi bii ñëw incha allah ci beneen jataay